Le bu président de la république décidé de transport bi dañu wara yolomal parce que depuis le 11 mai président a né reprendre activité économique Et reprendre activité économique da ngay xamné dañuy reprendre compte activité transport parce que transport doit accompagner activité économique et sociale Nous euh, avons ñu ñëw tay fi euh, ci di recevoir euh, l'eau, bi nga masque 100 000 masques le ministère du développement industriel euh, dans le cadre de son programme de 10 millions de masques Nous fait dañu koy jël jox acteur euh, transport Ce qui yombal bu reprise parce que reprise dañ reprise de reprise sérénité mais reprise aussi respecter protocole sanitaire la distanciation physique mais aussi les barrières les gestes barrières le masque les gestes barrières yi la bokk bu am solo donc vraiment ñu On koy remercier développement industriel industrie dafa war a anticiper sur les besoins économiques et et sociaux anticipation boobu moo tax tey bi ñu waaj ubbi école mu joxe 300000 masques ci eh, ministère de l' éducation nationale bi ñuy waaj a ne dañuy ubbi masques yi mu joxe 500000 masques ministère de l' intérieur tey xaarul daf ñu woo rek na ma comme dégg naa yéen a ngi ubbi ajjuma ñëwal ma jox la comme ça dimanche kuy dem ci gare routière kuy liggéey ci oto boo xam ne transport interurbain nga di nga mën a am masque parce que masque est un élément indispensable ci xex bi nga xamné ñu donc nous félicitons koy félicité bu baax. am nañ avons mu euh, ministre de l'intérieur ay masque euh, pour euh, mu yobbu ko ci lieu de culture. ñu ñëwaat joxaat éducation nationale également yenen masque pour mu jox élèves qui ci yi en classe d'examen Le bu président Macky Sall décidé des mesure de restriction yi ci d'urgence pour permettre à askan wi ñu mën a dem ci jumaa yi julli ji mais tey mu ñëw pour euh, askan wi mën yombal dem bi ak dik bi ba tax tay mu jël décision né ñu jox euh, le ministre des transports euh, ñaari téeméeri junniy masque pour mu jobbu ko ci garu ceer yi yóbbu ko également ci transport urbain ba nga xamné ne population yi man ko utiliser pour moytu feebar bi dal leen ndax président Macky Sall yaakaar né ne ñëpp xam na ñor moy protéger askan wi rawatina lu jëm ci wér yaram askan wi parce que xam na ne yaram kenn du ko jaaxaanee ndax di nit ki bu amul wér-gu-yaram du mën a def dara loolu day bloqué économie réew mi tey nag ba tax na tey président Macky Sall euh, jóg ne tey nañu taxaw jàppale askan wi mais aussi ci milieu de rassemblement yi lu mel ne gaaru ceer yi ak euh, oto yi nii dugg ni transport urbain bi ñuy mën a takk masque yi di mën a moytu bu baax feebar bi euh, ànd ak moom jëm dund ak moom donc daal vraiment tey ñu am mbégte mu rëy ma ñëw nag ak sama frère le ministre de transports Omar Youm ñëw jox ko tey loowu euh, téeméeri junniy masque mu war koo jëme ci euh, euh, gaaru ceer yi ak ci transport urbain yi